c'est bon voilà on est avec Tata Soham Wardini ñu gën ko xam fii ci Médina nekk kuy yëngutu ci wàllum politique bu baax baax tey ginnaaw bu fi Pape jógee mu teew fi mu nekk teewaay bu am solo ci rafet ñëw teewal ko ci dernier bisam bi nga xam ni mooy ëpp solo ci moom alors Tata nuyu nañu

Et ce qu'on peut dire, c'était un exemple pour la jeunesse. je crois que euh, Yalla suñu borom nga xamné moñu mom ñun ñëpp muy pour euh, parce que c'était richesse la woon monde artistique uh-huh. ne na lu bari ne kon dañ koy mettitlu bu baax di ko jaale mm. Sénégal yëpp na di ko jaale famille am surtout sa famille biologique mais aussi sa famille artistique di ñaan yàlla suñ borom xare ko ci àddina firdawsi di jaale mbokkam yi ñu ci fekk yëpp man wax dëgg yàlla jotoon naa xamanteek moom ah, defe naa daaw si je me rappelle ah. ñëwoon na ba sama kër seet si ma te toujours loolu yëpp ci mbirum culture mm-hmm. nu ñuy développer culture Sénégal nu ñuy defee ba nga xam ne artistes yëpp danañ ànd juboo bokk ànd bokk ndey bokk baay kon ñu ngi koy métti lu baax di ko jaale yi gis nañ que ni bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu doon warmaaloon culture maanaam ni nga ko doon def dañu ci tegoon teggin bu mat sëkk parce que man maa ngi lire benn vidéo am muy wax que ni culture mën nañ yeete mën nañ yee askan wi mën nañ def théâtre mais ñu teg ko à chaque fois ci warma quoi donc est-ce que du loolu noonu ñoom ñi fi des dañ ko war a gën a jëmmal gën ko rafetal ngir tamit lay mémoire gën di rafet. xam nga bu ñuy def théâtre surtout théâtre pièce de théâtre ay ay leçon de vie lañ ciy def théâtre bu nekk am na lu ñu bu ko jàngal nit ñi jaarale ko ci théâtre kon loolu c'était très important surtout dafa am ay thèmes yoo xam ne dañ koy aborder actuellement dafa nekk des thèmes d'actualité lu bari nag ñu doon ko ci def kon loolu artistes yi mën nañu wax ne ay éducateurs lañu aussi parce que loolu ñuy def di ko def su forme de pièce de théâtre mooy yee nit ñu bari ci àddina tey ji àddina dafa dox dafa avancé kon war nañ toujours vraiment di def yu mel noonu ay pièces de théâtre xam nga nit ñi dañuy topp téléphone yi portable yi réseau yi alors que loolu c'est des trucs mën nañu wax c'est sain mm-hmm. c'est sain parce que dafay jàngal nit ñi dafay yee nit ñi ci artistes kon vraiment demam bi metti nañu torop mhm. ñu ngi koy jaale ñëpp daal. jërëjëf merci beaucoup Tata merci c'est gentil. alors ñu ngi toog ki nga xamante ne mooy Lébu yaakaar naa ne doon na ñu présenté ci millier théâtre te duñ ko laaj tamit lan moo waral teewaayam fii nga xam nañ ne nag tey da ngeen a ñàkk euh, ki nga xamante ne frère la si yéen alors ñu leen koy jaale di bokk ak yéen li nga xamante ne mooy naqar bi di la laaj tey lan mooy yëg-yëg bi ci bis waaw boo ma laajee loogu din ma kontaan euh, te tamit euh, din ma sawar aussi tamit pour wax si ndax euh, Pape nekk na nit kaa xamante ne Pape nitu ñëpp la aussi tamit mu nekk koo xamante ne ku gëm li moo def la man suma xarit la ñu nekk daaray Kocc aussi tamit mu nekk nit koo xamante ne man dama ko yàgg a estimer loo ko tax Pape amul benn bés ba xamante ne rek Pape du toog te envoyé wu ma message nuyu ma ñaanal ma mu nekk koo xamante ne aussi tamit lépp lu ma xew la si tëngéej fële ba ma ko oowee Pape dina ñëw teew waxtaan man def nekk na koo xamee daal suma xarit la suma lépp la suma lépp la suma lépp la ba maa ngi rab maa ngi xool ni si suma bi euh, suma dernière kii beex moom euh, le 12 le 12 bi la ma envoyé ndeysaan euh, ñaan moo nekk nii gis nga pa euh, bi whatsapp am la gis nga euh, euh, le douze bi mu mu ma envoyé ñaan bi gis nga mu nekk koo xam ne suma xarit la suma lépp la moo tax fi mu toll nii sax man lii laa koy xoolee nii quoi waaw waaw waaw voilà non diggante nañ si festival bi waa diggante nañ festival bi samedi bi bi diggante nañ samdi la vendredi bi lañ diggante ndeysaan ñu waxtaan ay waxtaan yu rafet daal yu rafet rafet rafet ndeysaan mu di ma ñaanal rek waaw di ma ñaanal waaw nekk na koo xam ne daal suma xarit la ko waaw suma xol tooy na nag <laughs> waaw. tey mu nekkoon nit koo xamante ne mun nañ ne euh, euh, fu mu toll woon da daan sóor bés bi nekkul loo xamante ne moom daaw ci bàyyi xel bu baax daf ci daan bàyyi xel saa su nekk ndax ñu xoolee ci li nga xamante ne ko doon def ak pièces yi mu daan jooy yu bëri dafa daan waa pap ragalul won famu don dem de motax mané tay dem na famu min pap sak vendredi dem si armeri ah, di ñaanal ñi wa ba ton tonton Cheikh sax day o pap pap dem ma Ndiaye nako ma ngi ni di ñaanal ni si kiw eh, tonton Cheikh bi di ko ñaanal di expliquer Pap dina wër armeri, yi yëpp pratiquement dem ki kon dem na famu min wa waa won famu dem te aussi timit eh, yor na eh, ginnaawam da rafet na waaw yor na adresse bu rafet waaw ku ku diiñ ku am fulla ku am fayda waaw vraiment man tamit doonoon na koo xam ne sax suma roy waaye suma royukaay la woon si moom parce que dama daan xool ni moo doxalee Pape dina foo dina rey waaye bëggul ku ko yeb waaw loo ko nekk waaw man dama ko daa wax ne ku la xamul eh, dèjà mën na wax Pape dafa kii waaye ku la dugg rek dina xam kan moo la Pape ndeysaan mooy ree sama li ñàkk mu nekk vide boo xamante ne vide vide bi ngeen xamante ne tey dina ko créer ci seen biir ci seen biir ak ci seen biir liggéey. waaw tey jii bu ma doon wax ne bu doon dañuy ñàkk bu ñu dee misaal ci immeuble ma ne la immeuble ba màbba na waaw nekk na koo xam ne daal ñàkk na man bu ma xoolee man ñàkk na ma man man lebu ñàkk na ma parce que koo xamante ne. Euh, su ma lépp la woon Pape su ma lépp su ma lépp lépp. lan moo ci moom tey boo ñu doon wax moom ci personnalité am lan moo la gën a wax na lépp ku dignité la ku am dignité ko ku gën a neex si moom dignité boobu ak fulla gi ak fayda ak personnalité bi waaw Pape ñàkk nañ lépp ci moom daal. xamante ne tey bari na Pape dañu toog lu bari. dañuy waxtaan lu bari ba ci kii moom bi mu doon defax Aline Badara Bey mu ngi ne si suma ginnaaw euh, ndeysaan mu woo ma ñuy waxtaan si lu bari ndeysaan mu ne ko Pape man dama mu na man ñëpp laay gis saa sargal ndeysaan euh, dañuy toog tout le temps Pape dañuy dañuy toog tout le temps festival muy lépp dañuy toog tout le temps di waxtaan fu ñu dem dina ñëw kottu waxtaan ak man non vraiment. Euh, waaw waaw waaw waaw ñàkk nee daal. mën nañu ne Sénégal yëpp ñàkk. ñu ngi bokk ñu ngi ak yéen naqar bi ak tiis bi di ko ñaanal xanaa. waaw di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xare àjjana waaw Pape daal ku baax la Pape ku baax la nitu diine la waaw ku ma xam si moom nitu diine la ku fonk nit ku respecté doomu aadama euh, valeur daal. <laughs> yombul nit di am bu mel ni moom quoi di ko ñaanal peut-être bu demee nag ngay xam ka ñu naan pap pap pap mais euh, ñàkk nan ñàkk nan ñàkk nan ñàkk nan waaw maa ngi leen di fay gis nañ ko ni tey ku amoon solo ci culture bu Sénégal jëm ci wàllum théâtre daf jóge jógee muy pap mm-hmm. mu nekkoon koo xam ni yàgg nañ ko ràññee ci seen bi nga xam ne mooy théâtral du Sénégal amoon ci liggéey bu am solo tey mu génn àdduna boo amoon tey benn témoignage booy amal jëmale ci moom lan lay doon. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa li ñu mën a wax ci Pape demb daal mooy dellu ci sunu borom bi rek subhanahu wa ndax li yàlla rek ko mën nous tous on a les cœurs parce que Pape sunu nit la woon sunu xarit sunu lépp. man bi ma koy jëkk a xam son et lumière la woon gore ak ñoom Jean Pierre Lès mu ñëw ah, wax dëgg yàlla def fa famille ku xam US gore xam nga Pape Demba Pape Demba gore am na fa ay rakk am na fa ay doom am na fa ay yaay am na fa ay baay am na fa ay lépp te lépp boo ko mayoon boppam jege nag euh, sunu maire maître Augustin Senghor lépp ak lu muy def Pape baa ngi ci di ko jàppale ci xale yi di ko jàpp ci la bëgg nag sport ku xam US gore li ma la wax rek xam nga Pape ba man dama daan gis ma sœur et gore bu ma gisee loolu la may jëkk a wax kon ñun dafa bari lu ñu boole ndaxte ci liggéey bi sama collègue la ndax ñoo bokk di liggéey liggéey bi te wax dëgg yàlla tubaal kàll daf ko bëggoon amoon ci fulla amoon ci fayda amoon ci jom dem ma naqari woon de dafa dëgg woon dëggu ak naqari de rek benn dafa dëgg woon nit la woon koo xam ni daal mun daal duñu def lu dul rek sant suñu borom bi di ko ñaanal yàlla na firdaw si di dëkkuwaayam pap Demba lu ñu ko ñaanal doyul lu ñu ñaanal pap Demba doyul gis nañ que ni alors gis nañ que ni mo xaar bu ki wax ba pare alors gis nañ que ni. Pape mel na ni ku amoon fulla ci liggéey bi parce que démb man maa ngi lire benn vidéo am. mu ngi wax que ni mu koy misaal ci saabu mu ne saabu dafa am fulla parce que dafa toog ci boutique boobu fekk ko fa jënd ko fóote ko mu soog mu soog ko jëriñoo loolu dañuy firndeel ko ni moom liggéey bi ko joxoon àq jox ko cër wante daf amoon fulla ak fayda également. waaw mel ni saabu baax na ndax saabu day fóot lépp waaye du fóot boppam. loolu ko waxee waaw. te xam nga ñaare tagg sa bopp moo gën a yomb ko tagg keneen. te saabu day fóot lépp day raxas yi waaye du fóot boppam kon Pape mooy li ma la wax rek lu ñu wax ci moom doyul lu ñu wax ci moom li ñuy def daal mooy sant suñu borom bi rek ñaanal ko yàlla yàlla yàlla xare aljana fil raw si njaboot gi mu bàyyi yàlla ci yàlla teg loxoom ñun nag ñi nga xam ne ñun la doon àndal di liggéey ñu ko bàyyi duñu bàyyi njabootam ndax fu ñu ñaanee dinañ ko ñaanal ndax séqoon na ko ak ñun waaw te waa gore yëpp a ngi koy jaale nag man mun naa wax sax au nom de tout l'île de gore parce que am ni ma la wax rek am na lu mu fa meloon. fi mu ne sunu communauté goréenne bi. bu boo yeboo ma ne li ñu def sax ci communiqué. kenn yemu ci ak ñoom ndax Pape dafa am fu mu ne lu mu meloon ak ñoom waaw. kon man bokk naa ak moom gore bokk ak moom ci théâtre bi. donc euh, li ma bokk ak moom bari. ñu ngi lay nuyu dina la dina di la li ñu bokk. maa la di ziar bu baax ñoo ko bokk ñoo ko bokk. Ah, ñu lay laaj tey ah, lan nga yëg ci bés bi nga xamante ne tey kii di ah, Pape di seen frère daal dina leen dëddu wane ginnaaw. Pape defe naa ni tey ñépp am lu leen naqari tey waxuma Sénégal rek waaye monde entier ñëpp am lu leen naqari ndax Pape dem dafay nit ku baax koo xam ne gëm boppam gëm li muy def. rawatina ni muy liggéeyandool ñun moom daf ñoo def ci boppam daf ñoo def ci boppam jàngal ñu métier di ñu wax fi ñuy jaar nekk suñu conseiller teg ci Pape daal ñun ñàkk nañu daal waaw. tey Pape comme ni ñu koy waxee moom si ay waxam dañ koy dégg saa su nekk muy wax ni euh, ku dee bàyyi li nga xamante ne moom bébé tey ay projet yi nga xamante ne tey bokkoon ngeen ko daan ko def ak moom naka ngeen koy dundee tey. ah bari na projet mi bari na wax deug neex yalla mi ngi doon waje def ben création bu bees ah, macha allah way yalla li la dogal yalla bu dogalee rek jam ñak ke munu ci dara lu def lu di ñaanal rek diko ñaanal rek. yeen ngeen nek ay nit ñoo xamantene ne comme ni ngeen ko waxe pap dafa amone fo xamantene tay tey tegoon na len fa ngeen and ngeen nekkon bokku and di liggey tay lan nga ñu mëna wax ci personnalité ki nga xamantene moy papa jaru nit la am personnalité pap dem personnalité ken mënu ko nat am gem gem, xam moy kan koku moy pap Demba am rigueur ci bopam koku moy pap Demba tay ñak nañ ko xamni mën na la wax ni monument mo daam monument mo daam yow particulièrement lan moo nekkoon sa relation ak man pap Demba daf ma yar ñu mu yar ma ba may xale def ma ci boppam nekk sama conseiller Pape du dugg lu ma lu lépp lu may dugg dama ciy waxtaan ak moom lu ma xam dama ci waxtaan moom lu ma dégg dama ci waxtaan ak moom comme sama conseiller la sama genn wàll la sama sama xarit daal dem na waaw sama xarit dem na. feebar bi ko yóbbu daanaka tëralu ko. déedéet tëralu de tëralu ko de ndax bi muy dem festivalu naata moom boobu ah dara dalu ko. macha allah sant yalla waye nak eh, jam pexé yalla ak dogalam loolu la yalla dogal loolu la yalla dogal dafa bëgg ar ba sey ci ar rek ba sey ci ar rek. ak mom waw di ma mujjé weccante ak mom koku dafa nan ne li may dégloon li may dégg ak mom dafa bari ndax eh, daño bokk koñ muy sama frère à tout moment damay déggo ak mom ci lu nekk da damay waxtaan ak mom néna la wax lu mu waxul. du ma def lu mu yëgul lépp lu may def dama ci waxtaan ak moom waa ba nga toogee rek ñu tàggee la ko naka naka naka naka naka nga réagir. waaye damaa xëm damaa xëm ndax danoo ñàkk lu rëy mu metti torop parce que Seydina Muhammad danoo ñàkk lu metti ndax Pape Demba dafa sax sunu xol bi yal na ko yàlla yërëm dan koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm fi mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee waaw. merci beaucoup yaay metti na metti na mais metti na mais dala rek metti na mais cest à loolu moog àdduna ñoo ànd quoi alors tey boo amoon benn témoignage booy def ci dem ba mi dem tey lan lay doon. Pape Demba mi dem tey Pape sama xarit la Pape sama nit la fu ñu taxaw ci àddina rek Pape ne Aminta ma ne ah mu ne ma yow yaay sama artiste yow yaay xool yoo la Pape combien dane la ñu def depuis jamonoy tey ba daa rek ko ci ma léegi ñu nag Pape a nekk amul lu Pape di def te woowuma mu ne man yow laay xool yaay sama référence ma ne ko non non yéen ba ba ka démb ngeen ñëw mais yéen tamit suñu référence ngay li ma neex ci yow mooy ni nga ni nga dëggoon ni nga ni nga ànd ak xalal je suis comme ça naturellement comme ça pas ma changé ba ba ka démboo njaay rek bu muy def fii sargal Mbaye Ngaye dama ñëw solo ma ne ko damay dem ànd ak Mbaye Ngaye qu'est-ce qu'il m'a dit non non non non man maay sargalaate tu es venu pour moi tu vas rester et tu vas jouer dama nga sol sa yére nga yéeg man ak yow ak Matar Fall dañuy yéeg ci kaw jouer man ko papa ñun dañoo bàyyi nit di rek mu ne non non non non toi tu es venu pour moi tu vas rester doo jëli kenn da nga yéeg ñu jouer fu ñu mën di dem rek pap il faut mu ne kaay mu ñëw mu ne ma day 11 jours 11 jours 11 jours 11 jours tout le temps pap buñ may sargal sax fay jël né il faut ma wax ci ki man pap affaire bi metti na ma metti bo xamné ne mais nak lo xamné ne mo koy def on n'y peut rien alors pap ku bax la won sa wëllëre la won ngeen dund bokku lu bari ci walum aduna jëm ci walum théâtre tay bo doon wax Pape jëmm ji moy kan jëmm ji maam nam ci aduna lan nga ci japp ci lu gëna pap Pape li ma jàpp ci mom moy hmm. nekkene bo xamé ni bi nit ku dëggu la il ne triche jamais lu mu bëgg wax rek il te fait face et il le dit carrément ben de deux ku yene dom adam ku yene dom adam pa barka demb bu ma wowe wax ak mom parce que man vendredi mu je wax ak mom mu ne ma dañ may sargam mu ne ko je ne viens pas ndax ñu ngi préparer mu ne ma waaw ne bouge pas dama la wax ne nga tok sa kër nga tok noppalu mooy euh, ministère de la culture nga ren dafa ma jël man ak Rama Thiam pour ñu dem Màkka mu ne suñ leen jëlul woon sama xol du sedd mukk ci àddina aminte lii dañ la ko yéene te àddina bépp ñoo la ko yéene ñun suñu sañoon boo leen jógee màkk sax seen kër bopp ngeen di wàcc ma ne ko yàlla baax na màkk moom ku fa yóbbu ne deselatoo ko dara amul jour bu ñuy toog rek te déggante wuñu chaque jour chaque jour samedi laa toog gisum waxantu vendredi waxantewuñu dimanche waxantew ah lundi ma yónnee ko message tantôt. après là woo euh, Tony Tony ne ma mais dañuy régler affaire Pape Demba parce qu'il est malade dafa hospitalisé Fan je viens hier presque toute la journée on a parlé à discuter avec qui nous avec euh, Mamadou Diack mu ma naan na ma ko gisee ma ne ko waa lii gaaw na di mu ne ma ah malaise ma ne ko malaise da yàlla na ko yàlla yëkkati xanaa yàlla ñu rus xanaa yàlla dinañu rus yàlla na ko yàlla yëkkati mu ne ma ah, docteur bi nee na de sàpp ale sàpp sa waaye nag ah man daal maa ngi nii nii ma toog ba mu yàgg rek comme day dañ nekkoon ci ci ci jaag di maye benn doomam dem rek seen kër rek sama téléphone ma xool sama téléphone rek ma gis ko lii dëgg la lii dëgg la ma ne peut-être kii rey nit ñi moo ko rey mais après bi ma ko xoolee je me suis dit que c'est vérité la lii noonu laa obligé mën a jaat daal naa def tout moom possible pour ma mën a retirer téléphone am parce que nitam la ñoom ñaar dañuy ànd guddi ak bëccëg lu mu laax fi dañu ci jaat jaat lu mu laax fi dañu ko ci ma jël portable jaat na ko nëbb ko nëbb ko nëbb ko ba affaire yi xaw a passé ma ne jàgg mu ne ah ma ne ko ay la yéwén ay la yéwén il est parti il parti comme Bass Diakhaté xoolal jour Bass Diakhaté ku feebar rek Pape Demba di daw Safa ak Marwa ku nekk mu woo la ne la demal seeti ko dem ba jóge fi te ku baax ku dëggu ku véridique man loolu rek a ma neex loolu kese la lu mu dëggu nii amul lu mu ragal a wax ah amul lu mu ragal la wax fréquenté nga bab nek ak kan mom seq ak kan mom ay ay projet wala lu ni mel tay yalla jël ko fi ñuko ñaanul bax yalla yàlla ko aljana est ce que mën nañ am tamit la tam fi joggé xamone nga ci yeen projet la doon waajal wala yëpp la denk dara avant mu jël pap dal depuis le 27 mars biñu mujjé mujjee fele ministère mhm. waxtaan dem Sorano ñibbisi daf ma ne toog leen rek maire yéen paa yi yéen ak maire yi toog leen yéen ngeen xam ne depuis 72 vous êtes là vous nous accompagnez jusqu'à présent liñ leen di ñaanal defaguñ ko sax defaguñ ko sax projet liggéey nag moom man Pape duma wax daf may jékki-jékki rek woo ma téléphone Amina ma ne waaw mu ne ma tu viens me trouver là-bas Adouta Seck ma ñëw mu ne ma tu sais que yow yaa may liggéeyal lii ma ne pap mu ne ma ne yow yaa koy liggéey amul wax doo wax liggéeyal naa ko fi euh, tabaski mais amul waxaale amul dara ne eh, eh, eh, bul wax dara yow bul wax dara toogal rek waaw toogal rek man dinaa xam naa bi li ma waraloon yow di dem defal ko ba ba 30 jours yi mat tabaski mais pap nit la koo xamee ne daal vraiment nit la koo xam ne day kam xamul moroom amul dara yéen yenn bokk ndey bokk baay nit la koo xamee ne bii tamit lu mu la bëgg a wax daf la koy wax lu mu la bëgg a wax rek daf la koy wax te dëgg dëgg la lay wax bu la waxee ba pare nag après boo leen xuloo mu ne waaw ah, booy yow ah ñam naa ñam nga de tey de moom wax dëgg yàlla waaw ah, waaye nag dama la ko dëgg dama la wax dëgg seetal rek seetal rek seetal rek ma ne ko ah, wax dëgg wax nga ma dëgg nag mais ni dafa dëgg gi dafa saf mu ne ma ah noonu la nag noonu la xam nga man samay kii ah, waaw man waaw affaire bi daal di nekkaat ngeen nekkaat yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ah yàlla baax na yal na ko yàlla yërëm c'est ça yal na ko yàlla yërëm